من دقساس حاما أجل القلب والقلم من حاما ku bëgg Serigne Touba min dëgg seesin hama ajal xalb wala xalama min ku jóg taxa ca koy jaayu màggal sëñ Bamba yàlla na nga fekke déwén jóg leen taxaw ca koy jaayu ñu màggal sëñ Bamba jóg leen màggal sëñ min Bamba dëgg seesin hama ajal xalb wala xalama min hama bay Cheikh Abdou Khader min dëgg seesin hama ajal xalb wala xalama min jili borom baxdaat bustaan min dëgg sa silwaama ajal xalba wal xalamo bàyyi muudu mbak waa bak bas min dëgg sa silwaama ajal xalba wal xalamo bàyyi muudu mbak نبي من دقساس آمن جل قلب ولا خلم مامي عبد بك من دقساس آمن من دقساس آمن أجل قلب ولا خلم أنا صبي ممسر توبا دقساس هما أجل قلب خلم من هما وخل انتبار كدم غنغا ديمون بدو ميو سنات يا يا خديم من بابا غانغا ديمون انا سبي باي سيري ساليو نانغول سنو سيا يا خديم نبني بيسي تي بارك ديم غانغا ديمون دبر ولا دبر ولا نانغول سنو سيا انا رسولي mamba ganga demon ay Cheikh Abdou Khadar dem na ba ñibbi sey ci barke aw ganga aw rombasa rombasa ci barke aw ganga aw rombasa gatal safa marwa mambamba jóg leen taxaw ca koy jaayu màggal Cheikh Rafal jóg leen taxaw ca koy jaayu màggal Cheikh Rafal toogaay jeex na jóg leen jaayu màggal Cheikh Rafal amul sunu ziyaar sëriñ sax ci la tafsir ci baraka aw aw gaga aw garam basa aw garam basa loxo ci baraka aw gaga aw garam basa aw garam basa yaar bu ne amee ijaab sa sa mambamba ganga dem badome nangul sunu musiya sunu waaje demoon na jeewal ci màggu bis bu rëy ba woon fa jaar loxo ca kaw ci màggu bis bu rëy ba woon fa jaar xaadim la ne siyaarati biyaawale mambamba ganga demoon ayu Cheikh Murtada Mbacke nangul sunu ziyaar sunu waaje demoon na gànnaar ci barke dal ba nga daloon sarsara sarsara gànnaar barke dal ba nga daloon sarsara sarsara gànnaar nu ma waawam bamba sunu ziyaar ma bamba ba nga daloon wax leen sarsara mangamba sunum siyaar dem na ba ñibbi si ci barke daaru daaru ya daara sanc Tuuba sanc Tuuba barke daaru daaru ya daara sanc Tuuba sanc Tuuba barke yaarati ba booba mambamba ba nga dalal sarsara wul na mambamba fal njag yàlla gërëm na la la jox la sañ-sañ fal njag ngay fal di fal di fal neex jër nga agañ faal mbooloo mi Cheikh Ibra ngi doon jóg leen taxaw te ko njukkal baabul muridina jóg leen màggal Cheikh Ibra jar na ko jóg leen
bay fal bi yàlla gërëm na la la jox la sañ-sañ fal njaga ngay fal di fal di ku la neex jër nga waa kañ faal ana bay fal yi ana bay fal yi ana bay fal yi loxo ca kaw nu màggal Seex Ibra Faal bay fal bi yàlla ga am na la jox la sañ sañ fal ngay fal di fal di ku la neex jër nga waa kañ faal cere la yak cere la la daa jox ko Seex Bamba ku la neex jar nga
Faal njaga yàlla gërëm na la jox la sañ saal ngay fal di fal ku la neex faal jar nga kañ faal Seex Ibra cere la yak cere la yak marakis la daa jox ko Seex Bamba
ku la neex jar nga ana bay fal yi seen xibra fal jëmbal ko farta awam
aw baba amadu fal ko talal taal ba a dina fal jépp loxo ca kaw nu màggal seen xibra fal fal jaga Amadou Faye day taal taalam ba fal jaga seen xibra fal jëmbal ko farta awam ba amadu fal ko talal taal ba
jébbal
ana bay fal ana bay fal ana bay fal loxo ca kaw nu màggal Cheikh Ibra Fall fal njaga yaaram Cheikh Ibra Fall jëmbal ko arta awamba amadu fal di ko talal ta alba
jébbal ko awam ba amadu fal Amadou Faye di ko taal fal njaga Cheikh Ibra Fall jëmbal ko mboolem kër ga mboolem kër kër ga Cheikh Ibra Fall jëmbal ko mboolem kër ga mboolem kër ga kër ga ak lal ya ak lal ya yaa gën a ko mbër ngay wàcc nga
jébbal ko mboolem kër ga teg ca lal ya ak lal ya baraag ya baraag ya baraag ya bax nee na seen xeeb na fal moo leen yabal yabal maayam ba ñu yóbbu ay addiya yedd ko bambaay faal Ababakar aj Ibra Basil Abdoulaye Ndour Modou Fall Waasi Cheikh Ibra leen yónni woon ñand seen xibra fal moole yabal maayam ba yabal maayomba ñi yóbbu ay addiya yéen ko ba maay faal Ababakar aj Ibra Basil Abdoulaye Ndour Modou Fall Waasi Cheikh Ibra leen yónni ko woon bambo ñeent lañ dem nañu maayom ba maayomba ak fan ba dem Conakry ba dem ko ñoom ñeent dem nañu maayom ba maayomba ak fan ba dem Conakry loxo ca kaw dem nañu maayom ba ba dem Conakry ba dem ko nekk siyaare nan Bamba yóbbaale ay adiyaay faal yu bari nanu maayombe ba dem ko laajire kii si xibra yaara ne bamba Bamba
ale ay adiya Bamba ba ak li ko dale fii ba gànnaar ba weesu yaman ba weesu yamal ku fi góor yàlla yaay sam so sama baax li ko dale fii ba ku bëgg sëriñ Tuuba yëkkatil say baaram ca ko ko ko def ko defar ko defar ko defar bamba baax li ko dale fii ba gànnaar ba weesu yaman weesu yamal ku fi góor yàlla nana yaay sam so sama
baax li ko dale fii sëriñ ba gànnaar Seex Tafsir bu Buso sëriñ Jéeri waa daan so fii góor yàlla xam na la yaay sam suuf bamba baax li ko dale fii ba gànnaar ba weesu yaman ba weesu yamal ku fi góor yàlla nana yaay sam so sama
li ko dale fii ba gànnaar ba weesu yamal ku fi góor yàlla ku fii góor yàlla ku fi góor yàlla yaay sam suuf sama
jaara soxna maam asita waaw waalo noo ngi lay sant ñëpp la amee cant jaara asamoon naa wel paraxaal mbooloo mi paas baa ngoog ku jug taxaw ca kaw màggal soxna jaara yal na nga dem poroxaan ku bëgg a dem poroxaan jugal taxaw njukkal
soxna jaara buso asamoon naa al baraxaat
am asita waalo noo ngi ay lay waalo sant waalo noo ngi lay ñëpp la amee cant waaw jaara asamam naawel paraxaal jaara soxna maam asta soxna jaara buso waalo noo ngi lay sant soxna jaara buso ñëpp la ameel cant soxna jaara buso jaara asamoon bëgg naa soxna jaara buso jaara soxna maam asita man jaara waalo la waalo ilaali waalo sant noo ngi lay ñëpp la ameel cant sant nan la jaara asamam naawel paraxaal jaara soxna maam asta soxna jaara soxna jaara soxna waalo noo jaara ngi lay sant ñëpp la ameel cant jaara buso asamoon naa soxna si maami soxna may muuna Maymuna.
maami soxna muusina
Musina soppe nga fasil milna waaw moo tax nga xéewal baraxa maami soxna Maymuna soxna jaara bu su maami soxna Musina soxna jaara bu su soppe nga fasil milna soxna jaara bu su moo taxin nga am bëgg soxna jaara bu su maami soxna may muuna maami soxna maami muusina soxna Musina soppe nga fasil milna ndeysaan moo taxin nga xéewal soxna baraxa jaara maami soxna Maymuna soxna jaara bu su maami soxna Musina soxna jaara bu so soppe nga fasil milna moo taxin nga ku am bëgg soxna jaara bu so maami soxna Maymuna Maymuna maami soxna Mousela Mousela soppe nga fasil jaara la ndeysaan moo taxin nga lay lay xéewal la la baraxa maami soxna Musina soxna jaara bu so maami soxna Musina soxna jaara bu so soppe nga fasil milna soxna jaara bu so moo taxin nga am xéewal wax leen poroxaan ñépp ko ameel cant cantu ko wax na jaara asamoon naa wel paraxa ndeysaan ñëpp na amee cant sant leen maam jaara jaara buso asamoon naa wel sant leen ko saraan ñépp ko ameel cant cantu ko war na jaara asamoon naa wel soxna paraxa jaara ñëpp ko amee cant soxna jaara buso jaara asamoon naa wel soxna saraan si soppe nga fasin mil na man jaara moo tax nga lay la lay la la la soppe nga fasil mil na soxna jaara bu so moo taxin nga am bëgg soxna jaara bu soppe nga fasil mil na ndeysaan moo tax nga am xéewal Poroxaan soppe nga fasil mil na soxna jaara bu so moo taxin nga am xéewal Poroxaan gaaw leen nu dem waaj nañu dem Poroxaan déwén gaaw leen nu dem yàlla ko fekkewaat ñun déwén bu bësel la daal kay te jàpp ba sell daal te gëm Sëriñ Tuuba ne woon ne woon na maa fekkul ma fekk la fa gaaw leen ñu dem Poroxaan Poroxaan jàpp ba sell daal te gëm Poroxaan jaara Sëriñ Tuuba ne woon Poroxaan ku ma fekkul ma fekk la wax fa leen fa ñu jóg aajo mooy ka ca gaaw maam bu so mooy docteur Njaaxare ma ndeysaan fa jóg aajo mooy ka ca gaaw ka ca gaaw mooy doktooru njaaxara wax leen soppe nga fasin min na maam jaara moo tax nga layla ay layla Poroxaan soppe nga fasil min la soxna jaara bu so moo taxin nga am xéewal Poroxaan jaajëfati si lan war waaw waaw ay mbëri yaay ki leen waar bari yaa ngi leen bay waa nga ba bay seen waar Mam Jaara jaajëfati ma bamba mam bamba bay nga ba bay seen waa seen waar jaajëfati mam ku sopp bamba Seexul Xadiim Mbàkke kama bun asaan asoo seyri waaw waaw jaajëfati ma laa bamba ilaaha illallaah bu seyri kabun asaa asaan jaajëfati mam bamba
bu seyri kama bun asaan ndeysaan jaajëfati ma bamba mam bamba bu seyri kabun asaa asaan jaajëfati mam bamba
soxna jaara bu sasuma koy way mam jaara laa de xam ne moo may laa ma ma xam ne moo bari bari ma soxna maami ma may mami mamay bintu xaadimu rasul soxna jaara soxna jaara bu sosuma ku bëgg soxna jaara loxo ca kaw laa ne nu xam xagg ne soxna moo jaara bari may soxna jaara bu so ma soxna maami maa jaara may bisu.
bintu xaadimu rasul sa doom ji moo dem ba Congo Belsi sa doom ji delsi woote màggal sa doom ji dem ba Congo Belsi doomam ji del si Soxna si.
woote ma sa doom ji moo dem ba Congo Belsi na Belsi dellu si delsi woote màggal Porokhane
moo dem ba Congo Belsi delsi del si woote ku sopp soxna jaara bu so màggal moo dem ba Congo dem na Belsi dellu si delsi Sa woote doom ji.
màggal Umu Xaysu Naasi moo dem ba Congo Belsi soxna jaara bu so del si woote ma
jërëjëf jëf ñëpp àgg suuf nangu ñaan ku àgg suuf yàlla na nga ñëwaat déwén àgg leen suuf nangu ñaan
وافتح لنا كل باب من كل فات لساننا من الخيرات يا الله وهب لنا التيسير والفلاح في كل دار ونجاة رفعت يا رافع الدار لمن رب دير الخفاذ بفضل منك يا الله amiin وسلم يا ربنا وسلم على الذي قد بقى كل من سمع بستور أسلع أموري كسر خير بلا كدايه